kon nag war nañoo am fulla moom mu ñoo yàqal fi ñu jëm te buñ fa demee duñ fa jógeeti muy alaxira nañ du nañ dundal gëm tekki ci xol julli ku la gën a gëm tekki moo la gën dama koy wax xale yi ne leen saxaaba yi gën ñoo gëm yàlla te ñoo gën a gëm tekki waxiin la ndax ku la gën a gëm dekki moo la gën ba mu set ñu nettali la fa am saxaabi jaar nga defe ne ay léeb la fekk du léeb dëgg la ka ko def dafa gëm loo gëm dafa gëm dekki di gëm ndax léeg nit jàpp ne gëm na dekki fi gëm ko dekki ku ko gëm mu fay say def mu fekk ci ngay jëf kenn du gëm tekki ba pare di jëf lu ko yàqal gannaaw alaxira gannaaw dee kenn du ko def ku def lu koy yàqal alaxira rek dafa gëmul tekki loolu moo tax may nettali xissa boobu oustaz Fadilou taal bi defoon nga xam ni moom moo ko doon nettali yàlla dogal ba ba muy ba bañ koy nettali ma teewe ko te mooy dafa def xutba ci point moo xam tabaski la woon wala wala koriti muy muy xutba ba ci yàgg mu ne koo yàq àdduna mu yàq sàllaxi koo yàq àddunaam rek dana yàq sàllaxi affaire bi mel ni balu fetal ne tëll ci xol benn entrepreneur bu doon jullee ci càkk mu mel ni moom la imam Fallou Tall di wax ndax booba fekk na nee na am nañ benn ouvrier boo xam ne moom ak ay moroomu entrepreneur am dañ koy exploité ba yoral ko xaalis bu bëri bëgguñ ko koo fay ñu tuumaal ko tëj ñu tuumaal ko tëj ko moo ko nekk maa ngi toog bi imam Salim ne koo yàq adduna mu yàq sa alaxi nee na li des ci julli bi daanaka xamatu luñ doon wax mu daal di rocceeku nang dellu këram bi mu àggee këram mu woo xaritam yooyu bi xarit yi ñooyu mun leen dafa am lu ma dégg fa ma doon jullee dem jaaxal ma imam Salim dafa ne koo yàq adduna mu yàq sa alaxi xam ngeen ne ñun am nañ ku yàq àddina am tout man ak yéen xam ngeen ne lim ñu liggéeyal suñ ko fayoon mu mën a yor boppam waaye ñun ñoo comploté pour mal ko dem tëj ñoom ñëpp ñu tiit ñoom ñëpp ñu tiit ñoom ñëpp ñu tiit daal di woo avocat eh. loolu su waaye si moo ko nekk li ma toog maa ngi toog imam Falil toog ndax su gëmuloon dëkk wax yi imam Falil Tall wax ne koo yàq addunaa mu yàq salaate du doon def ci moom benn jeexital asewul yar ko ci diine ju wér lu mu juum tey mën na ko dam suba kon yàlla ci yàlla jàppale njaboot gépp gépp ñetteelu sabab bi tax ñu àgg fi ñu àgg mooy institution yi nga xam ne dañ leen a taxawal ci réewu jullit yi ngir fexee yàq doomu jullit yi am na ay institution yu bëri yuñ tabax ci réewu jullit yi léegi li ma ci jublu mooy ay groupe yuñ jël jox leen ay moyens wutal leen programme ngir ñu yàq doomu jullit yi bokk na ci escale de vacances su fekkee noonu lañ koy waxe vacances yi moo doon occasion bi jullit yi amoon sa rawatina jullit yi jàpp ne mun seen doom yi mënuñoo boole école ak daara nga xam ne su école ubbee ci école bi rek la dem occasion bi ñu dese woon mooy bu vacances jotee ñu jël xale yooyu yóbbu leen ci daara ji weer wala weer ak fukki fan ak juróom ñu mos tuuti alquran mos yar occasion boobu lañ bëgg mu échappé leen ñu créer ay xeetu ndaje xeetu foo xeetu wooy ak fecc nga xam ni non seulement ñoom ña fa dem duñ jàng ci alquran waaye ñu doon jàng alquran sax duutuñ leen jàng duutu am jot jàng ndax kër koo dem xale yi loolu ngay fekk ñu seetaan illaa man rahima rabbi mooy seen bu commencé rek ñu commencé te duñ fa def lu dul jàngale mbon jàngale ñàkk yar jàngale ñàkk kers danay fekk jàngale fekk jàngale wax yu ñaaw ci taas mais jàngale ñàkk kers ci yëri yi ñu sol kon ñun buñ ko yëgee buñ ko yëgut am na ñu nekk suñuy tànk te ñooñu duñ lu dul ñu bëgg a xëccoog ñun suñu njaboot yi nangu njaboot yi suñu loxo def leen ñoom liñ bëgg ñu mel ko te ñooñu bu ñu amee liñ bëgg dëkk bi kenn du fi ñemee te wax ni góor jigéen baaxul kenn du ko ñemee ci foofu lañ jëm ak mooy doo ñemee wax ni góor jigéen baaxul gestion loolu <coughs> baax na liggéey bu rëy la ñuy liggéey te liggéey ko def ak technicité parce que xam-xam lañ koy defee dañuy am seeni concept seeni turu bopp lépp loo tudde woon lii bu bu fekkee turu yi day déranger ñu tudde ko xoolal borom ñaari tur yi lan mooy borom ñaari tur yi Sénégal dañuy jékki-jékki rek ñu ñëpp ñu ñu ko wax kenn xamul ku ko lancé borom ñaari tur xam nga borom ñaari tur dara nekk góor jigéen góor mooy nit ku bon kooku nga xam ne dafay góor ba pare jàpp boppam jigéen wala. jigéen ju kon jooju nga xam ne dafay jigéen ba pare jàppe boppam góor di def jëfi góor kookoy góor jigéen ku bon kooku yàlla alak alak réew ma ko doon def santaane ki koy def ñu ñu ñu rey ko tur woowu tur wiy fàttali lu bon loolu nañ ko fi jëlee indi tur woo xam ne soo ko déggee ça te dira rien mooy première tur lan mooy première tur c'est un la ils sont extrêmement dangereux dañuy changer concept yi ba nga ñemee ko fi mu ne nii wax góor jigéen am na ñoo xam ne ñi muñ ko wax bu ñu waxee baal leen ma borom ñaar tuuti day baal góor jigéen jigéen la tudd fen gis nga fen fen fen lañ ko digg a tàmbale fen dañu ne kenn du wax fen dafa diis ci kan la gis xanaa ko mënut a bàyyi ñu ne bul wax fen del wax lu am waaw <laughs> parce que fen dafa diis effectivement daa diis parce que fen daa bon nañ ko wax fen ki koy def xam ne def na lu bon nañ ko may waaye wax lu am wax lu amul mën naa bañ fen bi ma ne il faut ñu bàyyi xel suñu bopp ñun ñu sóoru ñooñu gën a gën a waajal seen bopp ñun waajaluñ suñ bopp de ci lépp la nax góor jigéen gis nga bët bu set kenn def yëfu góor jigéen ne dama juum ngeen baal ma damaa juum xaw ma toon dara xale laa xale bu am soxna am doom mu ne daa juum te du juum kat def luy toroxal góor jigéen juum def kon institution yooyu ñu fi indi y compris les droits de l'homiste droits de l'homme yi droits de l'homiste yi waruñu sénégalais yi ñoom ñooy ñan sénégalais yi tam jéemu ñoo xam ñooñu ñooy ñan droits de l'homiste yi c'est-à-dire ni tubaab yi gisee adduna légiférer ko yoonal ko yaxal ko yóbbu ko Nations Unies ne képp koy dund ci àdduna bi noonu la war a gisee àdduna réew yi dul réewu tubaab te am yeneen aada am yeneen diine nangu ñoo mel noonu ñoom la ñu sas droit de l'homme si lañu sas ñu taxawu état yi nekk état yooyu lu loi yooyu si signé te kenn yëgu muy convention yi nga xam ne gars yi dañoo yoot dem signé di ko ñu bisi suñu ministre yor ay ministre de la femme ak waa ministre action sociale ak ñooñu groupe boobu ñoom ñoo ko signé ñoo yor ndànk dem signé ko ñëw noppi daganal góor jigéen Sénégal góor jigéen dagan fi bu yàgg problème bi kay mooy parce que góor jigéen dagan na ci loi adduna bi ci convention yi yi yi yi àdduna bokk dara nit te la ñu wax mooy réew mu nekk sa loi ci suufu convention boobu la nekk lu ca dëpp ak moom garde ko lu ca dëppawul ak moom changé te réew yi nangu nañ ko donc góor jigéen dagan na fi ba pare moo tax toog fi di xaar état bu la jàppale ci xeex góor jigéen ki koy def il n'a rien état buy xeex ngóor jigéen amu fi état yi liñ leen sant mooy ñu daganal ngóor jigéen dañ koo ñemee gu la wax dañ koo ñemee gu la wax waaye nag seenti ci ñoom ñu jàppale la xeex kuy foo koy def kon mbir yi suñu loxo la nekk suñu neexee li ñun si njëriñ di ko nëbbu ñu am fitu wax ñu ko suñu neexee lañu si yéen ñu ko nëbb duñu ko ñeme wax duñ ko fi def loolu ci ñun la kon institution yooyu te groupe yooyu seen liggéey mooy tas suñu diine yi yàq dëkk bi commencé ci saaga yi